Jamalaahi Evans Evans Evans. na ñëw. ngeen xool. boo defee tuuma tax a jóg. mag ñu ko ne li la yàlla jox mu am ko. ndax xam ngeen li mag ñu wax. ma ne ndax xam ngeen li mag ñu wax. waaye am na koo xam ne benn xëy ndax ma wax ci benn dëkk dama booy mu ne ma looy jël ma ne avion mu ne est-ce que booy est-ce que avion bi dina àgg mu ne ma ne ko boo fi ñëwee fekk wax bu ñu wax. يا محسن الإنس والجن إني رسول الله aji boobu mooy wuyu leen au pluriel ajibu au pluriel yaa maasara yéen mboolem nit ak inni man ko inni man ko got guaranteed. محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم أجمل قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الكافرين أجمعون إلى عن عنهم سيئاتهم واصلح بالكم اجبوا الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر سجود ذلك مثلهم في توحيده ومثلهم في من تلك زرعا اخرج شده فاعزله فاستعرض فاستوى على سوره يعجب الزراع ليعزل المنقصات وعد الله amuñu xel moom ba tax ñu ne imaam bu yàlla ko yónni. imaam bu xam nga lu xew. be di kon ne jaamu leen yonent bi yàlla moo ne leen ko gàntu kii na waru keneen te kenn na yoonu moom manoo wulk am fana mu am fukki ak ñu lànk mu gàddaay dem Medina taxawal woote fukki at ak ñett génn àdduna kooka moo taxoo Medina ñëw yoon wax ñu leen de yaa naa woon nag yanu lee téeméeru woon lii ñooy ci tulit wax. lii rek la. yonent bi ñëw ginnaaw yonent d'accord nañu de waaye nag yonent bi ci boppam dellu si. te billahi wallahi wataal laa ci dëgg la bill laa ci dëgg la moom la def billaahi wallaahi tallaahi bàyyi naa mooy moom billaahi waaw moo tax bàyyi mu dugg nag di ba waxu sa tur am eh defal na suñu retour la beaucoup de puissance. Puissance. Rodréphi man égale puissance. ñu dem physique tuuti. boo mënee du moom. nit demal ci alxuraan laa wax suuratul Baqara méttee na yàlla déggal ko pour mbiru justice atte bu leeru ñu déggal ka ñu rayoon pour mu wax ne diwoo ma rey ba pare doo rek am na suuratul Baqara curiosité intellectuelle aw kan على خليط وهي حاوية على عروشها قال أن يحيي هذه له بعد موتها فأماته لهم مئة عام ثم بعده كيميوزيك انتلكتير ويلا بكبين يبدأ نحن أهل على الخارمون رأيكم من صوت لا إله إلا الله ذكرته أنا أصحاب الكهف إن أصحاب الكهف والرحيم كانوا من آياتنا عجبا جسنا فصلى الله مسلم تبا بندني موك أصحاب الكهف بينا أنظر billahi gis na ko nee na moom am kenn na ne ci waa Cameroun wala boog ñi nga ne génnoon nañu seen kër yi waxum uluufun xadaral mawt ay benn benn lañu ñëli des milliers de personnes yàlla rey leen déggal leen ba pare nag rey na Moussa fa xar Moussa fa ay xar mais déggal ko bu ko alxuraan waxoon bàyyi naa wax ko ma seet lu ko man ci sama li ma yor man te instrument de mesure billahi wallahi taala damay nangu ne moom moom la moom la Seydina Isa ñëw ci ñu bëri am. salaatu wa salaam di moomati. Moussa moom dëgg moomati. teewul. principe ba mu ubbee muy suñu bos. luy taw a adama. inna akramakum inda Allahi atqaakum. gis nga. gis nga nawet nawet bii gis soo ko seetloo quantité ndox bi yàlla doon wàcce bi àdduna amee ba léegi même ndox mi koy wàcce ci suuf même quantité ndox mi mooy wàcc lenn doogu mooy wuute bi yàlla bu meree nit ñi day jël li ëpp rek aw ko ci géej gi wala ndax yi gaa yi duñ mais même quantité bi mooy wàcc même processus bi la même procédure bi moo tax mu ne gars yi su ngeen weddee ni nit dina dee dekki mën a waxale yow xiyam ne ci la waaye ci dee ci àdduna dekki ci la mu ne xool leen suuf si فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت chaque fait au cycle que fait univers bi day mel ni ku dee su yàlla tawee